xale yi ñoo màgg fekk internet uh-huh. mais tey réseaux sociaux mënul yàq sama valeur uh-huh. internet mënul yàq sama valeur ndaxte fi ma jógee bërki de ba may waxtaan ak sama soxna ma ne ko lii sama maam sama maam lii la ma teree mu ne ma kan mooy sama ma ne ko bambara la ma ne ko mais bu ma ko waxee ba tey gis naa daal dama koy moytu. jum daal maa ngi ko ciy teg ba tey. mais sa yar. pourtant ba tey sa yaram dëgër dëgër il l'utilise te mën na. saabu euh, saabu du fóot boppam. déedéet. c'est-à-dire yow loolu mooy sa perception. c'est la personne loolu laa gëm sama bopp. waaw moom laa wax man li ma gëm li may dund. moom laa wax loolu mooy loolu laa gëm perception par rapport à ta personne. waaw d'autres personnes ont une autre perception. ci li ngay wax yow mais ça leur concerne. non léegi dama waxtaan ak moom. li ngay liggéey pour ñeneen ñi la tax dama la wax léegi. waaw may ma absolument. lan moo ma intéressé sama diggante ak yàlla. toi tu travailles pas pour toi. sama diggante ak yàlla moo ma intéressé. sa diggante ak yàlla concerne wu ma. toi tu travailles pas pour toi. tu travailles pour les gens. loolu la wax de voilà. moom la wax moom la wax de yàlla moom saabu du fóot boppam tànge. Ah. waaw li nga wax yow ah. fi nga yaroo fi nga yaroo. ak ni nga mel. Ah. ak ni nga def nii. loolu mooy yow li nga xalaat yow sa propre personne. mais loolu laay dund. yaa ngi dégg non waxuma ne dundoo ko les gens ont une perception autre que yow li ngay. conclure yow mais la liberté. xam nga li wax. ana liberté non. man am naa liberté sañ-sañ ne lii laay dund. lii laa gëm waa sañ nga bi lii la ñuy dund. waa sañ nga ko waaw ton choix par exemple quand tu fais une émission nga toog di wax tu le fais pas pour toi-même. tu le fais pour les autres non quand je fais une émission je donne au peuple. voilà voilà moom laa c'est comme le juge qui est au tribunal qui juge. mais mais mais mais loolu li madame Diallo di wax. c'est d'autant c'est d'autant c'est d'autant plus vrai que. Taj, Taj ne fait aucune émission pour parler de sa personne. Ah, il parle que des autres. Tu parles toujours des autres. Ouais, mais je parle pas de ma personne. Ma personne n'intéresse pas les gens. Tu parles des autres. Tu parles des autres. À tort ou à raison. Ah, ah, papa. Mais non, non, non. Non, non. Taj nee na moom loolu la gëm. voilà. voilà. émission yi ngay def. du diggante ak yàlla. maanaam yow dina wax loo xam ne kër day yëngu. waaw dina wax loo xam ne kër day yëngu. Taj day yëngu daal ci boppam. ak nga wax seen fit day rëcc. man maa doon wax mais moom nee na dëgg la maa la koy delloo léegi. moom nee na dëgg la. dëgg la nee na ci dëgg la ne. am na loo xam ne yaa ngi koy def nee na ci dëgg la te pourtant temps léeg-léeg di nga dugg foo xam ne oh am na njabootu jàmbur boo xam ne. dina ko kon yow dégg nga fi may waxee. soxna Seyda dafa am lu baram lu mu wax léegi. kon yow dégg nga fi may waxee soxna Seyda dafa wax non yéen déglu leen Seyda. lan nga wax léegi. bu ko firndeel sa téléphone. firndeel sa bopp envoyé woo ko ko suturaal nga sa bopp mais soo ko envoyé. yaa weer sa bopp yaa weer sa bopp. soo ko envoyé yaa weer sa bopp. Prospère Seyda ngeen déglu aduna bi dafa am lu muy doxee Prospère man temps lu ma xam ne sew ma. ay temps lu ma su toogee di def gis-gis. mais temps di wane benn jikko. temps dem am problème bu boppam. maa ngi ci ñëw ñëw jox ko temps. mais temps ci def émission bu tudd. People pour leeral ni askan bi lii moo fi am. xaaral man koy tànn askan bi ku ci nekk yaay xam noo koy tànnee sa ceeb. mais man du ma ko dund man. il faut qu'on soit clair kii dafa wax solo. ku weeru yow yaa weer sa bopp. waaw foofu laay foofu laay Sofia mi ngi nii def na média depuis 2012 ñu ngi fi. Eh. mos nga ko dégg ci benn gaaf. mais ñu ngi dégg ci gaaf ñoo weer seen ah. bopp. Tange dama ne. voilà Tange dama ne. dama ne. Tange limite Tange. dama seetlu comme je dis je ne peux pas je ne peux pas personnaliser le débat. mais Tange li ngay émission yi ngay def. émission yi ngay def yow. émission yi ngay def. waaw waxoo ci yàlla. Ah, ah. waxoo ci yonent bi. déedéet sama digganteeg yàlla. waaw maa ngi ñëw. waxoo ci sa bopp yow. sama digganteeg ñoom. tu parles toujours des autres. waaw parce que des autres. moom laa la wax perception boobu nga am yow. Ah. te ni nga sangee sa bopp noonu ba toog noonu. moom laa la wax ne les autres ont une perception autre que yow bi nga am ci yow. prospère parce que yow li nga jàpp dëgg la prospère li muy def. moom la Ahmed Aïdara doon xëy di ko def ci télé bi. non non non non non non non non non non non non non non je suis désolé je suis désolé non non non non non non non non non non non vidéo bi nangam mi ngi nii kii ma ko wax je suis désolé dafay revue de presse pour jox ko ñuy jàngul mënul dem internet il faut qu'on soit clair ne me mets pas en mal avec le peuple. non je, je sais te, très bien ce que je, je fais à... si tu ne maîtrises pas ce que je fais tu te tais. non dama ne je ne je ne te mets pas en mal. non non non tu peux pas me juger alors que man je peux te juger. c'est la perception que tu as de ta personne. prof prof est une autre perception de ça. je suis désolé question boobu laa am parce que wax nga ko léegi. je suis désolé nga fekk dañ lay woowee Poutine. Poutine bañ lay woowee. dañ lay def yow ça n'a rien à voir avec ce que Ahmed Aïdara. je suis désolé mais li ngay wax ak li ngay def yow waxoo yàlla waxoo yeneen tëba waxoo pour sa propre personne. yow kan ngay wax tous les autres. nee na dëgg lay wax ndax yàlla lay wax. non dëggam lay wax. dëgg lay wax dëggam lay wax moom. il parle toujours des autres. encore une fois je suis désolé. loolu mooy modernisme loolu lañ tuddee ah, modernisme ñoom. man de donc du problème lay wax. parce que c'est ce que Mansour fait c'est que Ahmed Aïdara fait c'est ce que vous faites. mais non non je suis désolé. dama naan je suis désolé ça n'a absolument rien à voir. lan moo tax ñu tere ko. ça n'a absolument rien à voir. dañ ko bind ci journal. ça n'a rien à voir ah. je suis désolé. je suis désolé. mais li mu daanelee lu dëgg. lan la wax nga ay dara. waaw dañuy def su dee gaz bi ko c'est le travail. c'est le travail. yow e Tange ñun dañuy jël sànni ko ku bëgg nga jël ku bëggul nga bàyyi. non non non Tange désolé. mais Fatou loolu moo fi wax léegi. bokkul suur gaal du ko suur gaal du ko tere xeeñ même bu nekk ci journal sax dëgg la. nga bëgg nga wax suur gaal du ko tere xeeñ. suur gaal du ko tere xeeñ. moom la yàlla. xam nga la non tu sais le problème c'est quoi. lii moo tax société bi mënul réglé. on est devant les plateaux on ne comprend pas quelque chose et on veut juger. nul ne peut juger le travail de l'autre. Kaja Karna Kaja. waaw Kaja sama soxna la. papa ndax mës nga ko pipal. lan la xaw ma ko sama ko papa. mais Tange lan la nga wax dama ni. dama ni. li ngeen di def. waaw moom la ma Samba di def. waaw moom la ma Paate di def. déedéet kii dafa am lu mu kii dafa am lu mu. yow. ah bu ma ko lu ñuy wax. ah. xam nga ku deful lu ñuy wax du ko waxal. ñu ne ma yàqu nga. ah non